Je rek remercier l'ensemble des responsables du département de Pikine santé Grumben, gërëm leen mobilisation forte bëgg notre population bi aussi bu ñu wax ne lan moo Nous ñuy mobiliser mobiliser pour garde, pour sauvegarder son état Nous mobiliser pour apporter un soutien au plan Sénégal émergent qui est en train de transformer notre pays Nous mobiliser wu pour dénoncer attitude bi nga Ousmane Sonko am et ça ne date pas d'aujourd'hui attitude bobu yéen ni di journaliste rappelez-vous à la veille des élections présidentielles Ousmane Sonko moom moo woote menaçait fii organe de presse Nous ñi nga xamante ñoo doon résultat Ousmane Sonko ban chef religieux ci réew mi la menacé Ousmane Sonko ban leader politique le menacé wu ban presse éditorialiste wala les chroniqueurs ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ci ci presse bi xeetuñ ah, avec seen conscience parce que amna ay nit ñoo xamante ku wax lo xamante d'accordul ak li Ousmane Sonko di xalaat dinañ la saga dinañ la lu nekk dinañ la ko def waxon naa ko fi ni Ousmane Sonko politique bi nga xamante ne nako yépp ci ñetti M la ko Madame, manam benn bi mensonge benn bi manipulation benen bi di euh, menace léegi nag jéggi na nag menace Ousmane Sonko nag il faut ñu yokk ci loolu nag benn tee boo xamante ne téeréer li xaw li xaw barka dem barka dem ci suñu réew wone na visage bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko am puisque moom moo woo ñooñu pour ñu dem xeex ci benn mbir moo xamante ne tey dafa waroon a jël rek ñu woo ko mu dox ndànk dem wuyu ji pare ci loolu waaye mu woo nit ñi ci ginnaaw nit ñi. ñoo xamantene ci waxtu boo xamantene jafe-jafe am na ci réew yëpp coronavirus bi indi ko mom mi nga xamantene nak mom moy mooy wax deuxième vague troisième vague mu ngi comparé boppam ak coronavirus bu bon boobu waye limu tese xam moy lepp lu jëm ci parasite destin moy ñu phagocyté phagocyté ci gëm na ne ba fu muy mujj ndaw ñi nga xamantene mom lay mom lay manipuler dinañ ko phagocyté ba won ko ne Sénégal peuple bu mur la Sénégal peuple bu xam fi mu jëm la peuple bu bëgg réewam la peuple bu dul nangu benn yoon pour ñëw di yàq réew mi kon lii mooy li nga xamante ne tey moom laa ci moom de moo taxoon ñu mu woote am na ci nag loo xamante ne man gëm naa ne ku ko ci réew mi man Pape Ndong bu ma nekkoon benn nit bi nga xamante ne sax man maa fi des du ma ko nangu kenn Ousmane Sonko du ma ko mos a nangu mu confisquer sama liberté man amul benn terreur bu mu mun ci def boo xamante ne tey man mën naa koo yëg ci sama ci sama xol amul expérience amul vécu amul amul programme bi amul lumière bi amul esprit bi gëmuma gëm gëm naa ne amul lenn loo xamante ne tey Ousmane Sonko war na ko mën a xam ba mën a terroriser réew mi menacer réew mi ba lal politique boo xamante ne képp ku àndul ak moom dinañ la saaga ba ba ba lakk sa kër tey état bi dafa war a jël responsabilité am porter plainte au niveau de la CPI. ci crime yi nga xamante ne tey am na kenn du responsable bi ku dul Ousmane Sonko bi nga xamante ne moo leen woo ba ñu dem foofu noonu ba ñàkk seen bakkan